réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. jërë ngeen jëf mbokki internet yi yéen ñu ñu topp saa su ne si seen seen bii di les Patriotes TV dal leen ak jàmm si xibaaru guddi gi ñu wax si ki nga xamante ni moo di Sora le révolutionnaire moom mii nga xamante ni tegoon nañ ko loxo mën nañ ne nag buñ sukkandiku si avocat bi nga xamante ni moo di maître Khouraïchi Ba moom moomee daal dinañ koy jàllale si fi nga xamante ni moo di si prison ba. moom moomee di suura nag maanaam tuuma yi nga xamante nii teg nañ ko ci kawam nag di ay tuuma yoo xamante nii yu diis a diis gànn la. man na nag tuuma yooyu nag bokk na ci li nga xamante nii moom la ñuy wax euh, maanaam euh, association de malfaiteurs ak participation manifestation boo xam ni autorisé autorisé wuñ ko ak appel à l'instruction ak offense de chef de l'État bokk na ci tamit li nga xamante moom la ñuy wax occasionnaire des troubles publics bokk na ci tamit li nga wax lu ñuy wax faux essage de faux maanaam fësal ay documents yoo xamante ni ay documents euh, administratifs la maanaam faux échange de faux dans le document administratif moom moomee nag bi sukkandiku sukkandikoo ci avocat bii di maître Khoureyssi Ba Khoureyssi Ba loolee lañ koy toppee ba tax nañu jàlle ko tey fi nga xamante ni moo di ci prison ba